waaye ñu ngi leen di nuyu di leen jaar yéen ñi ci Woron Sport ñu war a ñëw ci benn vidéo wax ci match Sénégal ak Gambie avant match Sénégal ak Gambie réaction yi commencé na ku mel ne Habib Beye mi ngi mi ngi réaction di xam ne Sénégal max la boo xam ne pression bi taxul mu bari ci ñoom te match la boo xam ne pour mu génn ci ak ndam dana yomb daan ñëw ci loolu gën ci développe mais laataa ñu ciy xuus dañu wax yéen ñi nga xam ne gan ngeen ci page bi nga xam ne mooy Romo Sport ngeen abonné te ngeen bës li nga xam ne mooy cloche notification bi pour ngeen mën a suñu vidéo à taaral fii ci Romo Sport gars yi ñu ñëw directement ci li nga xam ne guddi mooy xew avant max Sénégal ak Gambie ku nekk di réactionné Gambie nag ñoom max la boo xam ne dañoo jàpp ne dañoo wër dóor war a dóor Sénégal malgré nag euh, ñoom euh, seen pression du bari ndax bu ñu nii la ndam la ci ñoom booy Sénégal dóoree deux lu tax gàcce gi bari ñoom ndax jàpp nañu Sénégal guddi yi mooy meilleure équipe ci Afrique mais ki nga xam ne muy Habib Beye mi nga xam ne ne ñi nga xam ne ñooy équipe nationale bu Sénégal ñoom dañoo war a dóor ñi nga xam ne ñooy Gambie score boo xam ne score bu exceptionnel dool mooy nag Coupe d'Afrique lañ jëm dóor score amul solo mais naam solo cinq max nga dóor garde li nga xam ne mooy sa trois points soo ko defee ñaar max da ngay génn sa poule te boo génnee sa poule da ngay xool nooy jàkkaarloo max yi nga xam ne mooy max ci quart de yi nga xool noo fay dóore pour jéem a dem li nga xam ne mooy final kon gars yi daal ñu bàyyi xel bu baax a baax na Sénégal instant yi moom ak Gambie max la boo xam ne pression bi day bari ndax Gambie kat ñun ak ñoom dër bi la duñ ñu may dara bu ñu jàkkaarook ñoom